ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ànd ak yéen saa su nekk ci xitma bu demee nii tey ñoo ngi ci Daaru Minam ci bisu Zikrullah bi mel na ni tàmbali ngeen seen liggéey ndax mën ngaa dikkaat ak yéen ban ngaa dikkaat ak ñun ci teewaay bi liggéey bi ak lépp lu ci aju. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax di leen ndokkeel yi tamit ci bis bi nga xamante ne nii moom la ñu bokk muy bisu zikrullah bi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Mountakha da ko jagleel Cheikh Ibra ah, jagleel koy tudd yàlla ñun nag waa ahlu liggéeyal Bamba ñuy rek ñu am benn taxawaay ci liggéeyu Cheikh Mouhamadul Mountakha bi mooy fépp fu mu woote ñu fas yéene ñëw def suñuy tànt waajal ay berne ngir joxal ngir séddaleel ko ko ganam ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi ñëw di ko wuyu si ba du lu ñu soxlawoo rek ci lu jëm ci wàllum lu ñu war a xewloo ci wàllu ndékki wala wàllu reer wala ak ak ak naan moo xam muy euh, ndox wala muy boisson wala muy kafe wala muy ataaya lépp rek ñu waajal ko ngir gan ñi mën cee bénéficier wu lépp ngir gën a mën a jekku liggéey Cheikh mu Mountakha bi loolu moo waral bi yoon ñu ñëw def fi ñetti bâche bâche boo xamante ne nii fi la ñuy waajalee togg yi ak boo xamante ne nii fa la ñuy séddalee ndox mi ak foo xamante ni tamit fa la ñuy séddalee berne yi loolu yëpp ñi ngi ko ñi ngi ci ñi ci dabu ngërëmul Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax xam nañ xam nañu bu baax ne ngaramu ngërëmul moom Mamadou Mountakha mooy ngërëmul Serigne Touba rek te lu ñun loolu rek moo ñu ñor waaw mel ni tey gis nañu ne yéen a ngi waajal ndëkk ndax mën nañoo xayma rek ci gàttal ñaata sandis ngeen waajal rek ngir jox ko Baye Fall yi nga xam ne jamono yi ñu ngi ci zikr bi waaw ci wàllum sandis yi moom dañoo waajal 4000 pain yoo xamante ne ni dañ ko def ñaari pàcc sandis su yàpp sandis su ginaar lépp rek ngir maanaam fas yéene koo tàmbalee séddale léegi mu jëm midi une bu ñu demee ba 14 heures jot nag am na mbaxal mu ñuy waajal moo xamante ne nii dañ koy def ci ay barget di ko séddale par po loolu yi tamit ñu fexe ba ñu nekk ci biir kër sëñ bi ak ak Baay Faal yi nga xamante ne nii ñoom ñooy zikar di wër ñoom ñëpp aussi ñu mën cee xéewlu ndax xam nañ ne euh, boo boo boo leen bëggee boolee ndoof ci benn benn bool wala dara dafay xaw a compliqué tuuti ci ñoom ak ni ñuy doxalee liggéey bi ñu xalaatoon ne kon lii moom mooy gën a pratique ñu ne woon nañ ko doxalee noonu kon liggéey bi mel na ni dafa ànd ak ay bernde ak lépp loo xam ne ni xeetu naan la moo xam lu sedd wala lu tàng waaw liggéey bi moom noonu la noonu lañ koy defee saa su ne rek moo xam muy Poroxaan moo xam muy bis bu Cheikh Mouhamadou Mountakha woote rek danañ fexe ba lépp lu ajowoo ci wàllum café ataaya meew ndox mu sedd jus muy boisson ak euh, lépp lu ñuy xewloo rek ñu ñu di ko waajal ngir ngir ngir ngir ngir murid yi mën cee gis seen bopp waaw kay. yéen kàddu ngay tëjee rek leen ci liggéey ngeen continuer liggéey bi ñu ne ñu daal di yeneen barab. waaw xanaa di santat Serigne Touba rek di santat Serigne Touba ak di santat Serigne Touba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xamante ne nii moom la booleel. wax dëgg yàlla liggéey bi mu yéegal ko niveau bu kawe kawe yaakaar naa la mu waxoon ca njëlbeenam nga ko dem ma dem ko demul ma dem yaakaar naa ci loolu la nekk ñun murid yi tamit ci loolu lañ ko wuyu si ngir bëgg rek mu am ndam ci liggéey bi te dina dina ci am ndam bu soobee yàlla ndax liggéey bi moom du laal suuf incha allahu rabbi fépp fu mu woote murid yi danañ jug xam leen ñun amuñu lu dul moom moom rek la ñuy topp lépp lu mu bëgg danañ ko def ni mu ko bëggee rek noonu la koy amee incha allahu rabbi ndax ñun moom Serigne Touba rek lañ bëgg moom lañ gëm moom lañ yaakaar moom lañ doyloo ba tax na fépp fu mu nekk ña nga fa incha allahu rabbi jërëjëf tawfiq illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bisimilah kon soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar fekk la tey ci bisum ndigal ngeen di xitma ndax mën nañu xam euh, mbooloo mi di xitma ñan lan ak lan mooy seen taxawaay tey ci Daaru Minane waaw ñun ñooy waa kër sëñ Saliou Fall bu sëñ Modou Moustapha Fall moom Cheikh Rahima Fall Lamp Babul Mouridina ñu ñëw nag ci bisu ndigal bi nga xamante ne nii moom la sëñ Mountakha woote jox ko Baye Fall yi ah, mu ñu tàmbali ndigal gi daaw mu daaw ñu def ko muy 24 heures ren ñu def ko 12 heures de temps lenn indiw ñu fi nag mooy njëriñ gi nga xamante ni sëñ Muntaxa mi ngi koy wax ci Baye Fall gi te ñuy dund Baye Fall gi képp moo ñu fi indi ñu jaayante ci bis bi ngir am tawféex waaw. tey lan mooy seen liggéey fii. waaw joxe ay xéewal rek joxe ay xéewal rek mooy suñu liggéey fii ni ko sëñ bi bëggee rek képp ku fi ñëw daal bëgguñu mu xiif bëgguñu mu mar bëgguñu mu manqué kafe bëgguñu mu manqué dara xitma daal moo ñu fi indi jëf jël googu Cheikh Ibrahima Fall di wax lu waay jëf yaay borom looloo ñu fi indi diggante jëf ak rek lañ nekk. bisub tey bi màgg lool lépp aju ci ndigal boo doon soññu bokki taalibe yi ak sa gis-gis ak sa yëg-yëg ci bis bi lan nga nuy tënkal. bu ñu xamoon maanaam bis bi li muy jëriñ ak fi ko sëñ Muntaxa Bachir teg kon bu wootee kenn du des ndax bis bi boo xoolee du Baye Fall yi rek a fi ñëw ku dul Baye Fall sax ñëw nga fi ndax mbir mee doy waar te yéeme bàkki Cheikhul Khadim bis bi dafa doon bisub yokkute doon bisub tawféex doon bisub ngëneel ci ñun. waaw bisub àjjana daal lañ gu ñuy dund la ñun Baye Fall gi waaw bàkk Cheikhul Khadim jaajëf yaaram la ilaha illallah